asalaamaaleykum mbokk internet yi seen SENactu TV andi na leen ay xibaar yi leer te wóor jàpp leen balaa ñuy commencé ñu ngi leen di woy ngeen xëy di abonné comme ça ngeen mën a am ay information yi daar daar ci kanam ay fan yi di ñëw dina ñu continuer di def ay vidéo yu sakkan sur information dara du leen rëcc ci information football donc balaa ñuy commencé xëy leen di abonné ngeen bës cloche bi comme ça ngeen mën a am information SENactu TV dinañu commencé fa la ñuy ñuy tàmbali ci Premier League League gis nga ni tey dañoo gelé match yi dañoo xëy yëpp annulé match yi war a am te ci bëccëg bi ñenn dañ koy annulé parce que reine Angleterre bi Elisabeth II moo gaañu démb moo tax ñu annulé match yi yëpp septième journée bi nee na ni du am deuil national moo fa am ñu des fa ci Angleterre ba tey ñu wax ci Chelsea club boobu bu Premier League bi Chelsea yëpp xam nañu ko eh, club eh, Edouard yi suñu gardien national bi. Chelsea di dafa xëy di dàkk entraîneur am keroog ci mercredi bi ci défaite bu mu amoon fële ci Ligue des champions bi euh, moom a fële ak club boobu Dinamo Zagreb moo tax ñu xëy ci mercredi bi dàkk seen coach bi dañu remplacé ko keroog ci jeudi bi remplacé ko par Graham Potter Graham Potter mooy coach boobu nekkoon ci Brighton moom la ñu signé keroog moom sax commencé na liggéey bi depuis démb moom bu mu ñëwee Graham Potter daf leen ne moom du nangu mukk continuer ak Chelsea sànq Chelsea du jënd ay joueurs yu mu bëgg moom moom dafa ñëw ak listam dafa ne janvier bu ñëwee moom Graham Potter dafa bëgg club bi bàyyi ko mu signé ay joueurs yu mu bëgg gars yi nangul nañ ko ko mu ne la moom dafa am ay joueurs yoo xam te ne ñu ngi Chelsea ba tey dafa bëgg ñoom waa Chelsea prolonger joueurs yooyu ñu mel ni Mount Rich James Jorginho ak N'Golo Kanté doomu France boobule donc nee na bu xëyee ci loolu moom Graham Potter nee na dafay continuer am projet bu am te ne bu étendre ci juróomi at yu mu war a tënk ak Chelsea mu defarawaat ci Chelsea ba Chelsea mel nu mu meloon mu gagné ay trophée bu ñu jógee ci Angleterre dañuy ñëw ci France bu ñu ñëwee France euh, ñu am euh, suñu doom boobu doom sénégalais boobu bu tudd Bamba Dieng Bamba Dieng gis ngeen ni que Marseille dafa bind dëmb ci sitom ni moom dafa intégré waat joueur bi maanaam dafa ko dugalaan ci list moom euh, Marseille léegi jaayatuñu ko joueur bi dafay xëy di fa des dafay jouer euh, moom loolu la ñuy wax euh, démb ci marché yi waxtaan nañu ak seen costi bi Tidor Tidor léegi moom nangu na ni Bamba Dieng léegi dina intégré club bi dina intégré équipe A bi dina jouer ay ay match ñu ñaanal ko euh, mu xëy di jouer dañ fay des ba léegi ci Ligue 1 bi bu France gis ngeen fii ay ay fan yi néew ni frère Pogba bu tudd Mathias Pogba dafa xëy di information ci petit frère moom Paul Pogba nee na Paul Pogba dafa marabute Kylian Mbappé donc wax na ko keroog démb mu génne wax dafa mel ni mu ngi bëgg sotti glace ci dossier boobu démb dafa xëy ñu laaj ko avocat am ne euh, affaire bi mu ngi ci loxo justice donc Mathias Pogba nee na du wax dafa bàyyi justice def liggéeyam daa mel ni famille bi tamit ci information yi ngi dëgg euh, nee na famille Pogba bi dafa nekk di waxtaan ci seen biir pour takk affaire bi pour mu bañ egg ci justice pour euh, frère yi mën na jégalan ba léegi dañuy des euh, foofu ci France gis nga ni tey ñoom Ligue 1 bi dafay am tey melul ni Angleterre tey bu ñu tàkku tàkkusaan euh, jotee équipe boobu di Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain dina jouer tey ak Stade Bressois à quinze heures quinze heures mooy tàkkusaan ci Sénégal bu ñu xëyee ci Paris Saint-Germain dañ fay des Marseille Marseille tey dina joué ak 19h bu jotee na marché ca suñu doom Bamba Dieng fan la nekk de ñu xool ndax tey dina joué ou tey donc marché dina joué tey ak Lille bu 19h jotee bu ñu xëyee ci loolu dañuy dem fële ci Bundesliga ku dëgg Bundesliga mooy Allemagne Allemagne fële mooy suñu doom boobu numéro 10 bu Sénégal bi Sadio Mané Sadio Mané fan la nekk ci Bayern ñu ne bar Bayern bu 13 jotee tey dina joué ak Stuttgart fële ci Allemagne ba tey. yi ñu am suñu beneen doom bu nekk fële ci Leipzig ñu ne Leipzig bu 13h30 aussi jotee dina jouer ak Dortmund Borussia Dortmund ñu xool suñu ñaari doom yooyu le ndax dinañu am tey victoire comme ñu ñaan ci suñu doom yooyu am tey victoire ci liga boobu le ñu dem bu ñu jógee foofu dinañu doxantu ndànk dem fële ci Serie A bu demee ci Serie A foofu club bu ñu nee Naples Naples dina jouer ak tey ak Spezia Spezia ñoom toujours bu treize heures jotee fële ci Italie bu ñu xëyee ci jógee ci match boobu ñu nañu seize heures bu jotee aussi Inter Milan dina jouer ak Torino bu Torino match boobu euh, jeexee ñu nañu suñu doom boobu bu Boulaye Diaté mu nekk Sampdoria Sampdoria tey dina xëy di jàmmarloo ak Milan AC bu dix huit heures trente jotee donc mbokk yi jàpp leen muy lool li mooy seen information bu ñu jógee foofu dinañuy dem fële ci euh, Espagne ñu nañu Espagne tey dina am euh, match Espagne euh, boobule ñu ne ñu tey Barça Barça dina jouer tey bu 16h30 jote moom ak Cardiff Barça boobu fa la ñuy des parce que gis nañu te euh, Barça dafa xëy démb di bind ci si tam ni moom dafay porter plainte Atlético Madrid ñu laaj ko lu xew mu ne leen Atlético Madrid moom Barça moo ko abaloon joueur mu signé contrat bu leer nañ ci Griezmann doomu France boobule Barça ne leen moom dafa signé ak Atlético Griezmann bu amee euh, ay minutes yu bëri ci foofu ci club bi club bi dafay xëy di leen fay quarante millions d'euros boobu euh, la Atlético ne ñett joueur boobu amul euh, minutes yooyu yu mu Barça wax donc affaire baa ci justice Barça nee ne Atlético dina ko fay quarante millions yu mbaa mu yóbbu ko justice moom du bàyyi affaire bi mu sedd moom dafay yóbbu Atlético ci justice Atlético dem ne ko demal def lu la neex man boo ma yóbbee ci justice ma wuyu si la parce man joueur boobu yor naa ay kayiti leer nañ ay minutes leer nañ ni que joueur boobu eggul ci minutes yooyu bu ñu xëyee foofu dinañ dem Atlético parce que Atlético boobu moom tamit club bu nekk foofu ci Espagne moom tey dina jouer moom ak Celta Vigo moom mooy dernier match bi ci seen journée boobu moom bu 19h jotee lay jouer ak Celta Vigo donc mbokk yi lii moo nekkoon information bi tey ñu ngi leen di ñaan ngeen wéy di abonné ci suñu chaîne bi SENactu TV comme ça ngeen mën a am information yi daar daar chaque fois ñu ngi fii am ay information yi ñëw si kanam merci beaucoup